waaw tengo bi ci naaka bi mu dellu mi ci lambay mag benn ngoone sa maam samaar bi waaw kenn mësu gis de si daate ngi cuun nii rek nag ndaanaan yaa borom yaay ju baax ndeysaan ndaanaan yaa ngi nii sama beneen yaa ngi nii. Ndeye Fatou. Ndiaye Diatta. ah waaw dégg nga mi ci ngaram. Yirim Ndeye la mi ci lambaay. waaw waaw. waaw waaw dafa tax ma mbëkk studio bi. mu mbëkk nag. <laughs> moo xale yi vraiment feeling ak ah. <laughs> si leen nag ah. ah. yéen a ngi seen kër. fii moom seen kër la. dal leen ak jàmm gàpp torop